Gambian Talents TV ñoo ngi leen fii nga xam ne Ndeye Garmi teewal leen fi eh, ci Ndakaaru doon seen correspondant ñu ñëwoon fi nag pour xool si rek gis nga li ngeen woon sànq ci image yi mooy yàq-yàq yi nga xam ne yàq ko Auchan yi muy euh, di ab euh, magasin yoo xam ne dañ koy jaay comme supermarket la euh, ndaw ñi nag ñëw di ko yàq ñoom nag sabab bi mooy dañ jàpp ne Auchan français yi ñoo ko moom moo tax bu ñu meree dañu ñëw fii ngir yàq ko ndax jàpp nañ ne gouvernement bu Sénégal dafa ànd ak li nga xam ne rek mooy français yi ba tax na ñoom ñi ñuy xeex seen démocratie loolu moo tax Sénégal daal ñu di ko wax boo xoolee gis nga fii nii déploon ab magasin boo xam ne dañ fii nii yëpp yàq ba xool buntu Auchan boobu euh, du ñu mën a euh, dugg ba ci biir a biir rek comme ni ma ko waxee du ñu mën a dugg ba ci biir a biir ndax dafa am yoo xam ne euh, waa ji nga xam ne mooy ku fi nekk di garde di garde du corps bi rek seen DG moo leen digal loolu maay njiit mi moo leen wax bu kenn ñëw am accès ci biir ndax dafa am ay bagage yoo xam ne dafa nekk te c'est confidentiel maanaam loo xam ne la sutura la te bëgguñu kenn rek gis ko comme nag suñu liggéey ni ñu ko jàngale loo ñuy wax dañuy respecté li nga xam ne rek moo di ce soir kon mbokk yi xaritu Gambian Talents TV eh, lii la woon Mouhamed Mbaye Garmi defal leen ko eh, incha allah dinañ ci gën a yaatal eh, bu ci yàlla àndee jaa ngeen jëf